waaw xam nga campagne bi ku ko bëgg a gañe xam nga ni doo ko gañee ci ci douze jours yi ñiy def études yi ci wàllu marketing Sénégal dañuy wax ne soixante quinze pour cent ñiy wote ñoom tànn nañ ci ñuy woteel au moins un an avant l' élection campagne bi vingt cinq pour cent rek électorat bi lay concerné te ku ci nekk day jot su wàllam parce que c' est une logique stratégique ku bëgg a gañe présidentielle trois ans avant ngay jóg def tuuru Sénégal wax ak nit ñi. waaw 12 jours moom ñu ngi koy waajal bo moom mu ngi ci ay activité am il fait le tour mu ngi gisante kilifa yi il prend ses audiences il a fait fini de faire presque le tour des communes de de Dakar depuis que mu amoon reportu élection bi par moment on était sur le terrain en même temps que toute l'opposition mais par moment aussi on travaillait à faire de la distribution seet suñuy nit nemmeeku leen lui il est fait prêt quoi et puis c'est quelqu'un de très bi fu mu nekk ni ko amul méthode amoo organisation amoo moyen ba pare amoo vitesse dans l'exécution des tâches n'est-ce pas tout cela reste sera en rade quoi